le 19 mai arène nationale la ñu jëm ñu ànd ci ak Ndiaye production Siteu bu Ngor xale yi nan ko last cri bi moo fa war a jàkkaarloo ak Boy Diop numéro 2 mooy borom soomi laa ilaha illallah déglu leen ñaari xale Fallou Ndiaye bu neexee sax mu bañ a mu def grand combat bi kese day woon mburu 15 bolok la dinaa bu ko neexee ñu dem si Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye la sa ah. ji lamba ji neex la lamba ji li ma waxoon rek mooy li ma leen wax ñoom ñi li ñuy bañ la lambu millier la nee nee na waa Ngor Yoff Waxaam kenn mënu si dara mënu maa jaxase kenn man doomu dëkk bi laa fi laa juddoo fi laa yaroo bu dee Ndakaaru nag la ñuy wax yëmbal kenn mënu koo génnee ci Ndakaaru man maa ne ko si dëkk Ngor ba mu ma ma ne ko Ngor Waxaam ba Yoff boo ci wàcc are boo ci wàcc ma daan la man maa ko wax ñun suñu làmb dara yëmbul moom da ngay xeex da bëre làmb ji fexe nga xaw a daw ba sonn mais mun neex la da ngay bëre mun naka la da ngay bëre si kàttanu yàlla toog ak moom na ko yaa mën si te rin taw taw ren taw ren taw ren daa mbax rin pi danda pandata rek ngay dégg mag sax xam na loolu. léegi ñu ñu ñu ñu ci combat bi combat fi ngeen sànq neex na. neex na trop yéen a ngi doon bu am solo. waaw ah, ah. ah. waaw xam nga xam nga xam nga dañuy. ñaari max nag moom gën a xam xale yi. ndax max dafa làmbe ba benn làmb bu amee bu demul du ko ji man nag naay dem yii yii du ma dem. te max ci biir enceinte bi lay dañ lay taataan xam nga. lu yàgg ci ñaw rek di ñaw. xale yi dañ lay taataan xam naa bu baax fa ngay waxee. am na ci ñoo xam ne léegi duñ bëgg sax ngay analyse seen combat ndax da ngay da dugg ci seen préparation. exactement. <laughs> en mais daal xam naa ne. combat la boo xamante ne nii. dafa dama seetaan open press ñaari mbër yi yërëm leen. kii def na démb kii def tey. waaw ndax de seen gox yi jógee. boo seetee cité bu ngor. Hmm. turu bu ndaw rabbi nii day yi maanaam ku ci ne da nga di sa soutien. Mm-hmm. Aliou nag. niroo la niroo la lu ñu sol. mais bu mu duggee ci biir troupe bi ànd ak ñoom di fecc sa yaram day daw. demal nañ dëgg nag àll bu ne la fay ñuul moo fa dem. ku ne la nga am rek ngay tiitaroo. et puis mu na nee na mooy le jaraaf de Dakar. ba pare ñu tuddee ko le jaraaf de Dakar day toog ñu ëmb ko mu toog ci siège jaraaf. waaw ñu solal ko lu ne. maanaam xale yi dañoo imposer. kan la ci jaraaf Ngor. moom nee na mooy la jaraaf de Dakar mu ne mooy la jaraaf de Dakar. waaw mu ne xale ko tuddee. xale ko tuddee. lu mu nekk la en fait ah. dëkk bu dëkk muy Ngor. waaw ah. ñun fa aar nañ fa suñuy mbap ñu mbapat. Hmm. dëkk la bu ne nga dem Ngor nga dem Yoof nga dem Wakaam. dafa amoon ay bayal spécial boo xamante ne pour mbapat kese la. Hmm. am na ku ñu naan baye. dañ daan mbapat nga dem Ngor foofu ci côté maire bi boo dugg seen sa droite dañ hmm. daan mbapat. nga dem yoof ba tey euh, ci mbengeen man daan mbappate ay goxu mbappate nga dem da fi nga jóg dëkk nii sanc ba mhm. ci kanamu jàkka yi lañ daan yëpp mhm. penc mu nekk daan daan am mu ngi noon mu ngi noonu mu ngi noonu moom si tëba ngoro ngi noonu moom si tëba ngoro ngi noonu li mu def rafet na jekk na waaw ah. waaw mu ngi noonu pour expliquer kasaanu lébu yi nga xam ne moo nekk Dakar hmm. ah kon si tëba ngor bu jógee te lébu dafa fonk cosaanam lu bëri. am na am na bu mu toogee ci tànn guy gi tamit ñooñu nga xam jóg nañu. ñu ko rawat nañ jóg ndax yoof na ko wàll sil. Mhm. okaam wala si ko te ngor moo nekk seen digg. Diop waxuma la sax open presse même buy entraîné ji événement lañ ko. Hmm? ñëpp koy topp waaw. maa ngi buy def entraînement. dama lay maa ngi naan la sànq dama dama damay dawal sama oto. Uh-huh. gis photo Diop doon. waaw ma ne waaw. man nag sama doom sama doom. Abdou Aziz nga xamante ne moom ay lamba lay léegi. waaw ah. kii muy Diop de mooy chef de ko soobu. waaw soobu waaw suñu ay photo. waaw ah, ah. fas yi ñuy gaare. fas yi gaare noonu. waaw ko dama ko bari ay fas la. benn garage fas boo xamante ne ay photo am kese fa nekk. dëgg ne ah booy na seen affaire mobilisation ak dëkk bi ñu dëkk vrai banlieue la foofu. la la banlieue vrai longtemps yoo xamante ne ay ruq yoo xam ne mosuma ko teg sama sama làmmiñ sama bët c'était la première fois mu dugg fa. Hmm. après gisaat naa fa nag ci kanam mu mu continué gis naa fa ñetti mbër yoo xam ne daal kox boobu ku nekk say posteurs ma nga fa. mais mm-hmm. nag ñoom nii la ñuy identifié woo. voilà doomu Pape Gueye bi laa doon. waaw kii mooy mu am kenn amu ko ci gox bi yëpp. mu nekk ah ma yaakaar ne si taw mu ne ma père kii des na tuuti ñu commencé ko tëkkal ak si comme ni nga expliqué léegi. non mbooloo koy topp. ni nga expliqué léegi kon. kon kenn mënut a weddi ci xale boobu loolu man nag ma gis ci moom taay boo xamante ne vraiment maa ngi koy wax sànq maa ngi koy jox ne bu amee un bon préparateur waaw ci musculation ak ci physique préparation physique nag nekkul rek musculation rek musculation mooy jëmm ji. waaw waaye xool ba. c'est mu xool taay bi un vrai professionnel. Diop da nga woote un nekk un géant. je vous de géant. loo nekk. kookal na nga ne. Diop de yaa ngi woote fekk sa père sa père Tafa Gueye doon wax ci yow xaaral mu jox la ko mu laaj la. à trois jours di combat moral bi nu mu def. laajal ko ba pare. laajal ma ko ah, ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay euh, ngeen ñëw ci biir arène bi summeeku mottali seen contrat kii daan daan kii daanu daanu lamb des di lamb. mal doon laaj ne fi des samedi dimanche nga dem bëri ji. suba boo yeewoo ci yan façon entraînement ngay nekk fii ba keroog combat ba nga tegal ñu ko benn par benn. buñ la mënee jubbanti tam jubbanti la bu fekkee jaarul yoon ah. bisimilah. sa papa sa père Max Margan mi ngi toog. non père génn nag moo xam naa seetaanu ma ko Max tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. père Amadou Kati Diop mi ngi toog. père Amadou Kane tamit maa ngi lay ziar bu baax di la jox sa waa ci waa ji. ak Mbaye Gueye Petit ak Mbaye Gueye Petit laa baj géwél Ndakaaru Ndiaye. waaw gis nga Mbaye Gueye moom suñu père la. waaw Petit laa ñëpp maa ngi lay ziar bu baax a baax. Ah, ok bisimilah. waaw question bi question bi moom bu ma si ñëwaat bu ma si ñëw yomb na. Hmm. waaw état bi moom état bi loolu olof jaay naan lu waaye doon jaay tey mu lamb. Hmm. waaw loolu la parce que doon na ci nga daan. waaw ni nga defal baax su ko mbaa desee ñetti fan mënoo doo ko see ut. Hmm. lépp loo doon préparé rek ba mu ba mu des ba mu des ay fan ñaari fan wala ñetti fan mënoo doo ko cee def. saa hmm. bii bu ñu yeewee incha allah rabi dañuy def réveil daw tàngal yaram bi échauffement ñëw nekk ba suur dal. Hmm. ngoon. ngoon gi bu ñu xëyee. bu ñu xëyee. Hmm. bu ñu xëyee dañuy daw dem géej def réveil musculaire ñëwaat tëdd nekk ba suur jàpp njàmbur waaj bis bi loolu daal échange lañ fi nekk. d'accord naa ci am na solo. loolu sax euh, boo xamoon liy njariñ li parce que entraînement du joxe doole récupération mooy joxe doole te ñu seet na mbër yi dañuy entraîner ba àjjuma ba samedi sax ñuy entraîner pour dem bëri ji dimanche moo tax mbër yu ci bari dañu am condition dañu am doole mais bu ñu agsee jàppante rek gaaw a sonn fekk ñeenti weer ñu koy préparé donc fiston loolu nga wax bu lekk dara génne ni ñu ko waxee noonu la wat noon laa la ko doon waxee xëy fudd sa yaram dalal sa noppal sa yaram lekk nag lekk bu yées graisse nga wàññi graisse wàññi ay jus yoo xamante ne day bari suukar pour mu yàq li nga def. Mhm. kon bokk fees ñu ngi ñu ngi ñu ci yow ma delloo la Lamine mu àggale yow incha allah jërëjëf. waaw la ñaan jàmm ak salaam. acca champion. léegi pare ngeen ci mobilisation bi. Ah, waaw mobilisation moom sa adversaire la mu waxoon dëggal na ko de cinquante bloc oh. yi. cinquante bloc maa ngi soixante dix. ah loolu kenn mënu ci dara. man maa ngi soixante dix bloc. yaa ngi ci soixante dix bloc. soixante dix bloc cent car. cent car ak moto yi. sareet yi. waaw yow man damay dox ñëw sax ñuy dox sax ñoo ëpp ñu limu si ko. neexee yàlla suñu borom bu neexee yàlla suñu borom ah lu ma neex ñoo def te sama place ku ne xam na ni. kenn mosuma noyyi ci bis bu soobee yàlla du waa moom mooy noyyi ci bis kon rendez-vous dimanche incha allah. rendez-vous dimanche incha allah rabbi. jërëjëf yaakaar naa ni waroon wax. boo cliquer stade bi doo gis mukk mu yaraax. da gis stade bi day fees ba dañuy tëj porte yi. Mm. am na solo loolu nag liggéey la ak gëm-gëm. allo waaw. jaraaf. ci la nekk. kii mooy sama ngor xaaral ma jox la perte avage yi nga wax ko yaay jaraaf kan ak kulofal ja <laughs> asalaamaaleykum fiston ñu ne nuyu la ziar bàyyi la nga nu yokk euh, plateau bi sant bu baax alhamdulilah ñu lay a baax jërëjëf jërëjëf waaw jox sa wàcc waaye bu wér a wér a wér merci si plateau bi ñëpp mm-hmm. waaw di jox seen wàcc waaye waaw. di leen jaale suñu papa ji fi jógee di ko jaale ak lu làmb yëpp. Mm-hmm. waaw di ko teg seen loxo yéen suñuy kilifa mën nañu am lu leen gën mën nañu am lu leen sut. teg seen loxo bu baax di ñaanal ay doomam yëpp yàlla meleen xolu muñ. amiin amiin yaa waaw leen nuyu bu baax a baax. est que que bisimilah ma dugg ak yow ci question yi euh, combat bi ñaata ñaata temps nga ko préparé. bi nga commencé préparer combat bi ba jour bi mu war a doon ñaata weer la. daanaka deux mois ah. damaa bëree naaru sogaas. oui nga si accéléré waat combat bi daanaka weeru koor yi rek moo si doxoon. kon xaftaan bi jot jotul wow. non jotul wow ay xale. am ñu mm. yaakaar si ñun. Mm-hmm. waaw ñu dëkk tund lewu nekk ay lewu. laa ko yaakaar si ñun. Mm. waaw yow xam nga fii ni mu demee fi ñu dëkkee Ngor Yoff. bu baax a baax waaw. baax a baax. xam nga ne dëkku làmb la bu baax. ok ah, ndeysaan. waaw te Ndakaaru lu muy lu muy nekk Ndakaaru làmb yëpp. ñun mm-hmm. yow lañ jiitoo yaa si ñu baax. jërëjëf jërëjëf fiston ñu ngi yàlla am lu la suuf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ñu ngi ñu ngi nangu dénkaane bi di la jàmm di ñaanal sa adversaire jàmm ngeen am tal ak fexe ak teey ba jóge seen kër dugg ci làmb ji remplir seen contrat. kii daan daan kii daanu daanu làmb amaat beneen dimanche waa fu mu bëggoon dugal yow ci question fiston mooy ginnaaw ba nga ma laa laajee ñaata maa nga préparé ne nga yow jotoo am temps noppalu continuer ah. combat bi mais diggante moment bi may wax ak yow nii ak jour combat bi euh, loo fa war a defaat comme entraînement loo xamante ne pour jëm ci combat bi la. non bisu mel bi Diop bu baax a baax sama promotionnaire la tey mbëkkante nañ ci mbapat yi ba tey. waaw moom moo ñu yor. gis naa ko gis naa ko. waaw ah, depuis ñu ba léegi moo ñu kooku der la kooku bu ngeen melee ni moom moom ay grand champion ngeen di nekk de. amiin c'est un très grand c'est un très grand lutteur Ibou Diop. Ah, ah, dëgg la moom dëgg euh, kii nag euh, sa entraîneur boxe bi sama sama coach bi ki si ni nooy liggéey ngeen ci combat bi. ah kon bokk Sinde moom ku liggéey ak moom di nga pare. Ibu Diop tam grand champion la. waaw mais fils ñu gis ne sa adversaire da xaw a loomaatoo taay ndax yow nga ci mbër yu mbër boo xamante ne euh, moo sut. waaw parce que bëri naa ko moo ko sut. bébé bis ah, moo dëkk Cambérène ah c'est vrai gis naa seen combat oui oui. moo ko gën a soog bëre moo ko gën a gaaw waaw daal am bu nekk daal. Hmm. waaye léegi kon ma laaj la ba tey euh, foofu nga xamante ne mooy gox boobu di ngor naka la ñu waajalee combat bi ñoom ndax yi ma naan defal defal nañ la ko yow. waaw a baax. Hmm. waaw ah amoon naa fa ay góor yu baax la yoo xamante ne dañu naan xabtal wax ak taxaw wax ak yow. génne jooyeeg génne wat yi ah. macha allah. waaw lépp luy bagaasu lébu rek. Hmm. waaw ñu ngi si taxaw. waa ñu ngi delluwaat la ñaanal jàmm di ko ñaanal sa adversaire ba dimanche ak jàmm joxaat la labin ba xam fooy mujj ak moom jërëjëf fis maa ngi nuyu sama mbokk ngor yëpp waaye. jërëjëf sa adversaire wuyul nga ne koy sa maam. yaa maa jigéen kànji. yaa maa jigéen kànji nee na mooy maamam. macha allah. macha allah yow moom ab la bu <laughs> borom ngor nga yow. borom ngor nga. Ah. adversaire nag wax naa ko yow cinquante bolo nga bëggoon mais moom nee na soixante dix la bëgg. <laughs> ah loolu si dara. ah bu amoon lu ñu gënal sax stade bi yëpp mais waa Ngor dinañ génn parce que tamit waa ji lancé na leen défi de nee na moo leen di noyé de. non loolu si dara kenn mosuñu noyé su mbooloo. waaw kon baax na. Ah, waaw mooy loolu. waaw buñ jógee rek réewee jox Dakar yëpp ay jox. jeex na dàkk. baax a baax. ayca jërëjëf kontaan nañ ci yow. waaw kontaan bu baax di ñaanal promoteur bi waaw li mu siy séntu. yaa na ko si am bu baax a baax. gis nañ ci coono yi mu daj si làmb ji. Mhm. ak lu metti woon trop lu nekk mu ko siy dégg ba yàlla def bés bi tey mu yegg fii ñëpp ne woon mënul taxawal ñaari bëri ñu signature. Mhm. fexe ba jaayante ko ba def ko. Mhm. waaw defal fi def film def lépp ñaari mbër yu fekkee ko ak lépp. Mhm. ñu ngi koy ñaanal si bis bi daal lépp lu mu si séntu yaa na ko am lu gën a kawe njortaam. jaajëf jaajëf waaw ay ca jërëjëf kontaan nañ ci moom bu baax a baax moom Siteu bu Ngor di wax tamit Lamine Mbow bu fekkee mën nga ñu jox Siteu combat Siteu bu Ngor bi nu mu gën a gaawee rek. Maxime Bargane mbër mbër yéene le 19 mai arène nationale la ñu jëm ñu ànd ci ak Ndiaye production Siteu bu xale yi nan ko last cri bi moo fa war a jàkkaarloo ak Boy Diop numéro 2 mooy borom soo laa ilaha illallah déglu leen ñaari xale Fallou Ndiaye bu neexee sax mu bañ a mu def grand combat bi kese day woon mburu 15 bolok la dina bu ko neexee ñu dem moom moom ku delloo la sa Fallou Ndiaye bañ jox sa rédiga ah. ko ji lamba la lamba ji li ma waxoon bandi la lambu millier la nee nee na waa Ngor Yoff Waxaam kenn mënu si dara mënu maa jaxase kenn man doomu dëkk bi laa fi laa juddoo fi laa yaroo bu dee Ndakaaru la ñuy wax yëmbal kenn mënu koo génne ci Ndakaaru man maa ne ko si dëfu Ngor ba mu ne ko Ngor Waxaam ba Yoff boo ci wàcc are boo ci wàcc ma daan la man maa ko wax ñun suñu làmb dara yëmbul moom da ngay xeex da bëre làmb ji fexe nga xaw daw ba sonn mais mun neex la da ngay bëre mun naqar la da ngay bëre si kàttanu yàlla toog ak moom na ko yaa mën si te